gox bii kenn du ko séddati séddee te loolu amugu fi bi Sénégal amee indépendance ba léegi te war na fee am nag ndax dayoo gox bi laaj na loolu doomi gox bi laaj nañ loolu ndax jàng nañ am nañ maandute te itam gox bi Serigne Touba liggéey na fi loo xamante ne nii ku ñu jox responsabilité ñu doxal Sénégal ba mu dugg ci loo xamante ne nii mooy développement kon sama wax du ci bari man dama doon introduire ñeneen ñi ndaxte kët campagne bi techniquement ñun ñoo ko yore. waa Bawal yëpp muy département Mbacké gépp di leen sant ci mobilisation bi di leen gërëm di coono yañ daj ci ngoon ba léegi ngir ñëw teeral ñu suñu gan gu mag bu ñu am yaakaar lool muy le président Ousmane Sonko. sama kàddu nag xam naa ne du ci bari d'abord feeñal suñu mbégte ci rencontre bi dajalee dajale. mu nekk un rendez-vous. bu am importance lool ndax dafa mën na signature de contrat la diggante président Ousmane Sonko ak waa Bawal ak Sénégal ndax su mu nee Mbacké Touba mooy Sénégal kon président Ousmane yaa ngi war a signer sa contrat fii tey contrat bi lay lié ak le peuple Sénégal ci li nga xam ne moom la ñuy bëgg moom la ñuy yéene moom la ñu soxla loolu mooy defar Sénégal dafa mel ne kon Sénégalais yi dañoo xëy yaw waaye dañoo yaw ci lu mën a avec brutalité maanaam déception boo xam ne nii dafa dégg dayoo ci yaakaar ji nga xam ne. am na ñu ko amoon ci ci le régime bi fi nekk mais sept ans après lu ñu gis mooy yaakaar ju tas dafa mel ne le peuple dafa commencé di xel yaar ci la classe politique. kon bokk na ci sa taxawaay tey président Sonko nga defaraat diggante bi nga xam ne mooy le peuple sénégalais et la classe politique. diggante la boo xam ne nii. lu bari da ci jaar. diggante Senghor ba ci Macky Sall. histoire yu bari yoo xam ne ni peuple Sénégal dafay am mbetteel ci suñu dirigeants yi. ñu am yaakaar. ñaan suñu borom. ci yaakaar ji ngi xam ne peuple Sénégal am nañ ko ci yow yaakaar jooju yàlla bu mu tas en tout cas suñu xel dal na suñu yaakaar dina dolleeku ndax sa engagement ndax sa taxawaay ak discours bi nga xam ne boole na Sénégal yi kon jàppal ne la jeunesse du Sénégal les femmes du Sénégal ñu ngi sa ginnaaw ak kilifa diina yi ñu ngi sa ginnaaw pour redresser Sénégal loolu nag yaakaar naa mission boobu doo ci weet ndax danañu jàppale ndax boromi xam-xam ñi ngi fi boromi yar ñi ngi fi ñi sëriñ yar a ngi fi ñi sëriñ tubaa tuba a ngi fi te jàpp naa ne bu ñu ci sa wet boo leen jëfandikoo ci sa liggéey Sénégal dina jëm kanam jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbokki Bawol jërëjëf uh, mbokki Mbàkke jërëjëf mbokki Touba ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp ci li gën a tedd ci ay nuyoo mooy asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi jiital ci nuyoo bi jiital ci suñu ziyaar ci nga xam ne moom la fi yàlla teg tey mu tooge fi toogaayu Serigne Touba di sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te ànd ak wér yàlla na yàlla may ko mu mottali ay yéeneem ak ndalam di ko remercier nag particulièrement ndax daf ma defal lu rëy ci ñun mooy keroog bi conseil constitutionnel di déclarer wala di génne liste définitive candidat yi maa ngi woon fii Touba mu may ma ci jotam recevoir ma ñaanal ma damay faral di wax ni ñun suñu gis-gis ci wàllu politique mooy suñuy kilifa diine nga xam ne dañoo am autorité spirituelle loolu may leen ñu jox leen cër gu toll ni tey bu du doon ñoom Sénégal tàkk na bu yàgg ni yeneen dëkk Afrique tàkkee suñu kilifa yooyu nun de Pastef ni ñu gisee politique ak ñi ñu àndal ci politique yépp ci coalition mooy suñu kilifa diine yooyu nañu fexe ba setal leen ci politik bi man de usmaan Sonko mii ne ci politique taxaw am sañ-sañu laaj baatu askan wi bu ma doxee ba wëlbatiku gis ay doomi soxna sama gannaaw sama xel day dal loolu daf may gën a motiver ma amit certitude ni ñu ngi ci yoon bu baax bi moo tax ñoom ñu mën a ànd ak ñun ndax it aw fukki dërëm bu ma leen jox fii ma toll nii kenn ñëwul ci man parce que dafa yaakaar dara luñ ko jox waaye ngëm-ngëm ak bokk gis-gis ci réew mi moo tax ñoom ak seen dayoo ak fi ñu bokk ñu ànd ak loolu lépp ne ñoo ngi ñëw jàpp ci xeex bi buñ ko defee nag jàppalewuñu usmaan Sonko waaye dañuy ànd xeex ngir Sénégal gi ñu bokk ñun di nuyu di ziyaare xalif général kullu bay Fall di ko gërëm moom it ci ñu ñu yaatale ak ci fan yu néew rek ni ma recevoir may ma tuuti ci jotam waaye di nuyu it njabootam gi fi teew yépp di nuyu it njabootu bu sobeek ñépp ndax fii ñu nekk defe naa ci seen pénc la bokk donc suñu amee sañ-sañu taxaw fii di fi def meeting dafa fekk ñu gërëm suñu teewaay fii ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar fii dama am mbégte teew fi ci ñaari cër bi ci njëkk mooy doomu bawol moo ñëw bawol ndax suñuy présenté Ousmane Sonko li gën a li ñuy gën a fësal mooy Casamance bi naam ci Casamance sañu bokk te ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax am ci fierté bu rëy rëy rëy waaye yàlla bi mu ñuy tànnal nag daf ñoo tànnal ñu bokk fu bari ndax ku sa waayu jur bu jigéen di waa xombal gi kenn mënu laa génne ci bawal kon cër bu njëkk bi di doomu bawol a fi ñëw waaye ñaareelu cër bi mooy doomu Touba moo ñëw seet si waa Mbàkke ak waa tuuba ndax man dafa am lu ma frappé mooy bi ñu duggee ci politik ba léegi. waa Touba ñoo ma jëlal seen bopp. muy sëriñ si ñu leen di ziar ñoom ñépp nag kër yépp muy taalibe yi muy citoyen ordinaire yi ñépp ma jël. boole ma seen bopp bëggal ma seen bopp ba man sax léegi dama ciy am kersa ma bëgg leen xamal nag ni su ngeen ma bëggee benn bëgg naa leen fukk te cofeel gi cofeel la goo xam ne ngir yàlla dong ak li ñu bokk muy senegal ak li ñu bokk muy diine ak li ñu bokk muy bëgg jikko ju rafet ak li ñu bokk muy bëgg saxal dëgg ci réew mi damay wax ni ñun suñu digganteeg diine gi amuñu ci complexe bokkuñu ci politiciens yoo xam ne dañ leen gëmloo ni boo buggee yor réew wala boo bëggee defar réew sa mbubb diine da koy summi teg fële daldi nekk leneen lu ñu mënul tudd diine mooy nit ak diine gu mu mënta doon nag ki mujjee wax léegi di Bruno D'erneville bokkuñu diine waaye gëm naa ni naw naa ko ci lu bëree bëri bëri ci jikko loo xam ne man dama koy roy ci moom diine mooy defar nit jox ko jikko diine moo na laan lii araam na lii daga diine rek moo mun a nekk ci nit ñu ne la keesu cinq milliards a ngi nii nga am ordonnance su cent cent mille francs wala vingt mille francs sa poos amoo loo ko jëndee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 maandu muy jub muy dëggu muy jiital dëgg ci lépp loolu nag bokk na ci suñu combat il faut ñu delloosi ko ci miim réew nit ñi nag wax ci bëri na bëri na torop léeg nga dégg ku taxaw politicien nag politicien bu ànd ak Macky Sall ndax man li may wax awma lu ma ci ragal moom moom bu buggee wax lu jëm ci Ousmane Sonko moom bu buggee wax lu jëm ci Ousmane Sonko amul sañ-sañu tudd sama tur danaan am na politicien yoo xam ne man nag damay jaar ci turam parce que man duma gaaruwàlle man li may def dama ko ñeme ma ne léeg ngeen gis ay politiciens yu ànd ak moom ñenn yi sax ne fii la ñu askanaw suñu bëggee taxaw nag parce que jaare nañu Ousmane Sonko fu ne mu mënuñoo fexe ba am fuñ ko jaare wër nañu lu ne mënuñoo fexe ba am luñu ñu lu ñu lu ñu teg ci table bi sos nañoo sosa sosa sos ba waaye luñu sos huit heures balaa midi Sénégal yëpp xam ni dara du ci dëgg léegi nag léeg nga gis politicien bu taxaw naan Ousmane Sonko ci lii la bokk wala lël la bokk wala dafa contre di euh, euh, tarixay yi wala dafa contre mag ñi moo xa leen fii tey ni kooku di wax loolu waat naa ci yàlla ni buñ ko tegoon teg ma buñ ko tegoon teg ma laaj Cheikh Ahmad Bamba kan moo ci sa taalibe mu ne Ousmane Sonko mi mooy sama taalibe ma li tax ma leen loolu moom mi ngi nekk ci système di ànd ak ñoo xam ne wax lu dul dëgg nax askan wi luubal alalu askan wi jaay intere réew mi jël réew mi tayle ko jaay ko ci biti moom ci loolu la ànd waaye loolu la Cheikh Ahmad